Euh, bismillaahi rahmaani rahiim ba léegi <clears throat> ñu fàttalante rek ci bindi daara ji euh, lu am solo bunt boo xamante ni lu ñu jëfandikoo la surtout jamono yi ñu toll mooy zakatul fitr zakatul fitr mooy kay muurum koor comme niñ ko gën a xamee ñun lu am solo la loo xamante ni yonent bi sallallaahu alayhi wa moo ko farataal ci ñun xam nga am na lu dañ koy wax zakatul riqaab zakatu riqaab am na zakatul amwaal am na zakatu riqaab nag mooy asakay muurum koor bi boo ko bokkut ak am amwaal bi nga xam ne jàll na mooy asakay ñi asakaale yeneen àll li tax ñu tudd ko zakatu riqaab mooy ñëpp la war ku am xaalis danga ko génne zakatul muurum koor ku ñàkk dana ko génne ba ci ku ñàkk koo xamante ni sax yor na alal joo xamante ne bëriwul jublu ma ci rek ñàkk ba amoo dara dara waaye li nga yor bëriwul la laaj jub bëgg a wax kooku dana ko génne Euh, ñu ngi ko farataal at bi nga xam ne ci lañ farataal koor mooy atum ñaareel mi ci gàddaay gi li gën a wér mooy dafa war li ko saxal nag mooy na moo ko waral euh, ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ngeen ko xamee ci xadis ibnu Umar bi ko yonent bi farataalee moom moo daan moo ne woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam farada rasulullahi sallallahu alayhi wasallam sadaqatul fitr min ramadan ala la Euh, bari na njariñ loolu mooy zakatul fitr euh, dañ ne bokk na ci njariñam mottali li manqué manqué yi am ci koor gi euh, day bokk na ci ay njariñam du yokk wërsëgu doomu aadama kon li ki noonu ba tey nag safaan bi li ki noonu koo génnewuti ne ko la yaasu billahi taala mën nañoo ñaawee njort njort ci yow ci loolu yenn boroom xam-xam yi sax dañ koy yóbbu ba mu gën a yaatu loolu gis nga Cheikh Habib ibn Zayd naan yublaa bi naqsi sawmihi wa yaqsuru um, wa yaqsuru umran wa risqahu alayhi yaqdiru almutahaawinu bi ixraaji zakati fitrihi kashful qinaa isa xakaa masala ñu jëlee ci kashful qinaa nee na ku yàlla nattu ba doo génne asaka mburum koor mën naa dana danañ ne nattoo sa koor gu manqué wala yaas billahi taala wala fan wu gàtt wala wërsëg wu gàtt kon nañ ko fonk zakatul fitre euh, lu yéemu la xam ngeen ne bokkut ak azaka ji ci des ñëpp la war bu fekkee ne dangaa ñàkk sax ca yaakaar koo faye war na la mën nga koo génne mën nga koo leb xam nga ne loolu kon wuute naag euh, lu bari lu yéemu la àgg na ci bu fekkee amoo lépp mënoo ko joxe ca mën a joxe lenn liit ba tey baax na kañ lañ koy génne muxtaaru ixraaji zakaatil fitri qabla salaatihi wa baad al fajri bisub korite tege ginnaaw bu ñu jullee fajar ba noppi ak njëkk ñuy julli diggante boobu lay doon daruur ji nag mooy bis bi yëpp waaye nag laa tasqutu bi mu diyi zamaniha lu mu weesu lu mu yàgg-yàggit mën nga koo joxe boo ko fekkee ne waroon na la ko mën nga koo joxe bu ngeen demee ci muxtasar xel gis ngeen dana wax ba ne wa in bi tasallufin daal sax koy leb bu fekkee da nga ragal ne da nga am loo ko fayee war na la war na yéen nga génneel ko koo xamante ni yaa ko war a dundal bu fekkee ab jullit la zakatul fitri ci lan la war ci lan lañ ko war a génne yonent bi sallallahu alayhi am na yu ñu limal al muashar du lu mat juróom-ñeenti xeet yoo xam ne comme ni mu ñëwee ci xadis yi nee na ci lañ ko war a génne mooy yi asnaafu tisan yi nga xamante ni xam ngeen ko rek xam sha'ir sult tamr zabib aqit duxun zurra urz yii ngay xool yàlla def na sutura ba réew mu nekk moom jàpp naa ne yi am na fa yaay xool rek bu ci gën a bari lu ñuy dunde rek moom lañ bu bëgg na not rek ci lañ koy war a génne euh, bu ngeen demee ci muxt saaxibul kafaaf dana koy wax waaye na masala moom ne tajibu min aglabi quutil baladi min waaxidin min tisaatin la zaidi xamxin shairin wa zabibin suluti tamrin uruzin duxnin aqtin zurati fa in tasaawat xayran in yucdami fa xayruha kahiya kaza masala mi jeex asakay murum koor kon ci lool mooy muas ci nga xamante ni ci lañ ko war a génne génne ko ci xayma nag lañ ci daan wax rek lañ ci waxaat ba léegi du mazhabu Malik ku ko def ci mazhabu Malik li nga def daganut ca doyut ku yàq ko génnewut yéen am ci ñaari asaka yëpp muy asakay murum koor muy asaka ja weesu gis nga muxtasar xalil boo demee bi mu lim yi nga xam ne dagganut lim di lim di lim wa in wa in wa in agsi na ba ci ne wa in aw bi qiimatin lam tujji kon azaka des ko joxe ci xayma mashhur mazhab malik foofu danay indi wax yu bari léeg-léegi waaye rek comme baaxoo wax rek ci mazhab malik ci lañ tënku ca laam yi nga xamante ne joxe na ko ci loolu doy na doy doy nañu ci loolu kon li nga xam ne mooy mazhabu jumhur nga xam ne Malik moom la wax Shafii Ahmad ibn Hanbal nga xam ne Abu Hanifa rek moo ci wute ñoom dañuy asaka kenn du ko joxe ci xayma mooy dañ koy joxe rek ci lu ci nekk niñ la ko digalee nga war koo joxe ñoom dañoo jàpp ne sax ku ko def asaka ji doyit mooy da yàgg koo génnewut ak yéen yam ndax daal di yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci asaka murum koor dafa farataal saa comme ni ngeen ko xamee saa arbaat am daat ci ni mu ko ci xadis ba mu jeex rek min tamrin aw saa min saxir aw saa min zibi ba mu jeex nga xam ne kon li muy tegtale ci ne comme yooyu la ràññee rek nat wane ne ci lañ ko war a génnee mooy nas ci la ci tur yu wute la indi nas su ko mooy bind ko yaxal ko dañ ne bu fekkoon ne xayma la ci lañ ko war a joxe dañ naan kon lii nga xamante ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam def mooy lii mbaa lii mbaa lii day mel ne kon bu la neexee ngay loolu amul maanaa kon ndax taxa ngi ne andi yee ci bii ak ci lii ak ci lii ak ci lii dafa andi ay tur yu wutee wute ne lu ci nekk rek ci lañ ko war a génne moo tax ñoom dañuy jàpp daal nas bi ci lañ bëgg di sukkandiku nas bi nga xam ne am na surtout loo xam ne dafa andi répété ko andi lu bare bare bu ko neexoon mën na ca dolli ne wala seen xayma wala lu ko mën a wutu ca dolliwu ko ci ñaara be ñoom dañuy jàpp ne kon daal moo tax génne asaka xayma ji day rotal nu suus nas nas bi moo tax loolu mooy seeni wax ñoom moo tax moo doonoon mazhabu waa Madina muy Malik ak ay saxaabaam mooy mazhabu imaam Shafii mooy mazhabu imaam Ahmad ibn Hanbal euh, surtout nag ci lii nga xamante ni mooy zakatul fitr waaye comme li ñu waxoon rek Abu Hanifa daganal na ko boo demee ci leen seen teer yi dañ ko fa fekk dangay gis sax ci taalibeem yi dañ naan génne muurum koor ci ñoom maanaam ci ñoom boo ko joxee ci xayma anfa moo ëpp waaye nag ixraajuha min alximtati ahwat ñoom dañ naan leg léeg waaye génne ko ci dugub yi mooy génne ko ci muashara ad yooyu juróom-ñeenti xeet yooyu ñuy wax ahwat moo gën a loolu ñuy wax ñu koy wax ci bësëb abu xanifa nekk li tax ñuy wax loolu génne ko ci juróom-ñeenti xeet yooyu ñuy wax yooyu yonent bi yooyu ñu lim ku ko def moo gën a wóor ndax kenn doo dégg mukk benn kenn ne li nga def dëgganut moom wala li nga def am na ñu ne doyut ca bu dee génn ci xayma gis nga li ma leen wax bu doon mazhab yi ñeent la ñett yi dëgg na ko moo tax dañ naan génne ko ci ximta moo ci dugub ak yu mel noonu axwat moo gën a wóor foofu ndax xilaaf amatu ci amu ci moom ku xam ne xilaaf amu ci waaye génne ko ci xayma dañuy wax ñoom ni anfa moo gën a gën njariñ moo ëpp moo am xëy na mooy ëppal njariñ moo gën a yomb xëy na ci koy génne ki nga ko joxe moo koy ëppal njariñ kon loolu mooy masala mi nga xamante ni moom lañ baaxoo wax rek ci joxe asaka ci xayma dafa mel ne nit ñi xam nañ ko bu baax a baax toujours foo leen fekk léegi rek day man ne masala moom nga xam ne mooy xayma yi ci la ñuy nekk di wax waaye loolu rek moom lañ ci daan wax moom lañ ci wéyal di wax ba léegi wa qiimatu boo demee ci euh, xiima Cheikh Modou Mawrud mi ngi way masala mi ci beneen asaka bi waaye ñaari asaka yi rek ñoo ci yem wa qimatu zakati anha takfi lada al imam al xanafi wal juxfi wa huwa allazi bihi yaqulu ashabu wa misluhu lil utqi yunsabu walakin astaxixa anhu al mustahir adamu al ijza wa alayhi al muxtasar mooy day wan ne xaymay asaka li ci nekk rek lay wax imam Abu Xanifa daganal na ko nee na suñ mazhab ki ñu wax ashab ni ki noonu ak utqi mooy ibnul qasim waaye nag mu ne waaye li gën a wér cañ solo ko ci ibnul xaasim du loolu mooy dëgganut loolu nee na mooy li nga xamante ni moom la muxtasar andi kon loolu mooy ixraaju zakatul fitr nañ ko fonk lool euh, am na solo lool bu ko kenn di ñàkk def ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu ci jubluwoon rek nga jariñ ab faqiir bis boobu ba du mën a génn daana wax ne ughnuhum fi yawmi hadha an as-su'al jox leen dara ba duñ mën a génn bu fekkee am nañ imaam ju maandu it mënees nag koy jox moom sax moom lañ ko daan jox nga xam ne koy jox imaam jumaa di joxan dana ko dajale séddale ko xam ne ñu ñu ko war a jox euh, loolu baax na nañ koy jox imaam lu koy dajale niki noonu loolu baax na nga xamante ni euh, boo ko xoolee sax ñu bare bare bare bare danañ koy def waaye daal ñu ci farlu bu baax a baax rek di ko génne di ko génneel yi ñu ko war a jox ñëpp it kiñ ko kiñ koy jox nag moom mooy xor muslim faqir rek as gor ngay doon nekk jullit boo ko ci banu gor ngay